waaw taabul yi fi ñoo ko yéenay wax fan ngeen bëgg a toog jege Pape Diouf mi ngi nii madame Diouf a ngi nii la mooy seen papa salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal gars yi noonu la demee maa ngi nii biir Paris di waajal dina de gala des valérités bu Papa Diouf a ñoxo baay bi mu war a tëgg fii biir Paris table 2000 euros entrée 200 euros gars yi réservation yi jeex na na gars yi ñëw wax seen i table fan lañ koy teg gars yi Papa Diouf a ñoxo baay fi mu nekk nii saye gaay Pape Diouf tàkkali ko naag ñëpp ndax àdduna wërngal këpp Sénégal kilifa yi nit ñu baax ñi nit ñi bëgg harmonie nit ñi dégg ñi ma waxaloon nag ñi ma waxuloon woon ñëpp xam nañ ni Pape Diouf a ñu ko bàyyi dàq way ci réew mi sa loogu kenn weranteetu ko Pape Diouf li muy way xajul ci bopp gars yi commentaire yi nag dama bëgg ngeen dugg ñi nga xam ne ñu may message snap di ma message Instagram di ma message fu ne nan ma Ketchup Pape Diouf a mën a way maa ngi koy dugal TikTok ak Instagram commentaire len fa li nek sen xol bu len neexee lu les wax Diouf fi ne ni Pape Diouf dafa commentaire al ne Pape Diouf fi